nañ dem. xarit ah, moom mbokk yi ba tey xam naa am na mu ngànt woon. est-ce que ah, ah, kon ba tey gaa yi dersi nañ ci téeram bi ci salwatu sujoon ci daaw ni bi ci xarfu daat ay den ba tey lan la Baye wax. Mhm. Baye mu ne xos Ibrahima na seytaan rajim bisimilah rahmaani rahim. wasallaahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima radiyallaahu taala an ashaabi rasul wala hawla wala quwwata illa billahi li yasir bi al liman nahat li tafriji karbil muqrabina wa man wuy bàyyi dafa jar jàng ndax ay luxa arab yi ci nekk sujoonun ay xeeti waxtaan bu ñu sujoon rek ay xeeti waxtaan ak xeeti njàqare loo ko si doo waaye nag xeeti waxtaan bu ñu su ay xeet daan nii moo ma tiital moo ma jomo man Ibrahima ay xeeti xeeti jaaxlee ma dal sa yaram nii mu jël na ma kan ci kan li man koo xam ne naxada moo jog li tafriji karbil mukarabina pour wuññi njàqare ña njàqare ka nga xam ne dafa jóg pour dindi njàqare yi xeeti mbëggeel yi ma ko mbëgg moo ma jaaxal moom nag kooka ma mu bëgg ma mooy kan mooy waa ñi nga xam ne dafa jóg pour dindi njàqare njàqarekat yi woo man ak koo xam ne naxaada dafa moqar ne ku eh, ak koo xam ne dafay tëb dafa tooñ gis nga borom saraa bii danay wax wax joo xamante ni bu dee cëll ko ba moom doo ko ci xam nga naada mooy mu tuddee ko mu ko firee tooñ euh, bi naa naada mooy ku buur rek ku jokk euh, boo ko firee kon tooñ rek bu ñu ko tuddee beneen place ndax na mooy buur de kon day baat bi day teqale ko te fekk baat bi la ko jokk ak kuy koo xam ne yaa ngi jàq ak ku jox bëgg ko dimbali rek moom mooy jokk dimbali la salawtu sujooni fi madihi muhammadin fasaha sujooni wa sururu atta ay wat salawtu dëfal naa dëf mooy nga tiitoon sa xel del saat sa xel dal loolu mooy dëfal lan laa ko defal lan laa defal sujooni sama xeeti njàqare yi fi madihi muhammadin ci tagg muhammad tagg yaay ci laa defalee fàtte sax li njàqare yi foo saxa dem na su jooni sama xet yàqare yi woo suróoru kontante ya atta dikk na xew a dañ wéccee place kontante yi ñoo dikk place yi xeetu njàqare xam li ma ko firee kon mooy su joon xeetu njàqare loolu moo gën a nekk loo xamante ni loolu ah, kon nag njàqare ya dem nañ kontante ndikk na ba ma tagg yonte bi ñu ne ko waaye kooku nga tax ma ne Muhammadu xayru naasi akramu muhtidan wala mahtadan wa faran wa naslan wa lillahi qad mahat ah, Muhammad mu ngi koy sant ki xamuloo ko xayru naas yi mooy xayru naas naasu ku ci gën mooy Muhammad akramu moo gën a foo tedd muhtidan cosaan cosaanam moo gën a foo ci cosaan yi ah, wa faran ak ci banqaas wa baslan moo dàq gën a tedd ci na may joxe wa huwa moom muhammad xan mahadaa sellal naa li laay te yàlla tax bu laay laaxee mahadu mahadu mooy laay daf laay wax daanal di la laaxee biir te yàlla rekk tax du ca du ca làmbaale xam nga léeg-léeg nit dala dala dala laaxee biir fekk dafa laxasaale tuuti loo xam ne bu laaxee biir wala sottee mu mos dara <laughs> yonent bi di def loolu moom daf laa laaxee biir te yàlla doo nga tax mooy loolu mooy mahadu akis ah, ni akis ni mun xamee naa wadaari kan li awaali haddin xayra danga xayra xaadika maaqabat aqis nii nga lakkatti mooy aqis nii jàppale ma mun xamina mun xamina wa daari kan nga dabatal li awaali abdin ci ay problème jaam jaam boo xamante ni maa xabada jàpput xayra xaadika lu may sa wóolare jàpput dara sa wóolare rek lay jàpp kooka yow na ko jàppale koo xam ne sawul rek lay toppatoo ah, atatruku abdan laa yuhibu siwaakum xaala soo i xaalin fa walla yabtaqi ibat atatruku ndax da ngay bàyyi abdan jaam jaam boo xam ne laa yuhibu siwaakum ku yéen booba bàyyi xam nga bàyyi dañ ko fitnaaloo ndax da nga fi bëgg a bàyyi jaam boo xam ne yow rek la bëgg xaala nga bàyyi ko xaala soo i ci ñaaw situation bi mu nekk foofu moom jaam bii lu situation am dansé dansé dansé laa yëpp du sàkko du sàkko an wala wala wéccee la kenn du la wéccee kenn lu yëf yi mitti mit dem ci kenn na ko wax ci yow rek laay wax ci wax ci ah fa farit koro bi ah wat wi kulla maha mihin li qol bi ma saaril Moustapha xaysuma naxar fa farit na nga wuññi koro bi sama njàqare na nga teggi sama njàqare woo du na nga leem ku la mahamihi lépp loo xam mooy distance jaam bi ni mu suree yàlla mooy mahami nag ma leemal distance yi li qurbi masaaril Moustapha pour ma mën a jege fi ma mën a siyaare Moustapha ndax diggante Sénégal ak foofu sori na nag ma leemal diggante xay suma naat foo xamante ni buur na rek mu mën a dikk siyaare si moo tax gannaaw ga départ dem ci bateau gannaaw ga ma dem avion gaaw lool dem ci dem suma na hat an mi sengor waxe ne ren abion de abatu demati ni ñi jaxle bañu spontan ci moom ah te gis nga xam xam sa jamono nam tollu day tax nga noppalu kay yu bëri nag dal ci comme comme gouvernement gouvernement ndax gouvernement mu ne nangam nangam waaye deg bu tott ci moom alayka salatullahi suma salama wa ani wa sabil hubuhum khayru muftarak halaka yalla ko salatu suma salama wa wa alin ak al wasabin ñoo xam ne hubbuhum bëgg leen xayru muftarat moo gën ci liñ farataal farata yi ci gën ci farata yi mooy bëgg yonent bi ak alu ak sa bi mooy farata farata la de ah bëgg yonent bi ñun pour ñun pour ñun du soppe du duñu luy sopp du suna farata la farata mooy loo xam ne ku ko bàyyi xam nga bàkkaar dëgg la ku bàyyi sopp yonent bi bàkkaar nga kon nag xarfu fa e, maa ngi koy demat ba tey ci salatu su joon ah ma dem laaj ko eh, ki ki ki doon defar salaawu su óoni lastu anhu bi qaanitin boo la habibillahi wa huwa mubasit salaawu su óoni yiwee nag samay affaire sama mbir man sama problème arrangé wu lastu den man bi qaanitin may daa crasé anu booba man duma ci décrasé aw benn xel yaar ne sama affaire dana baax wa waslu abi ak jokkoog soppeeku la may sopp yàlla bi woo moom sopp yàlla bi mu baasitu mooy koo xam mooy kaf ak man damay fiita dima mu baasata boo ko def def moo ngi def mu ak man maanaam mu ngi naan Ibrahima defal ndànk sa xel na dal mooy def mu baasitu woo yarda abibulaahi xani tafadulan fama dara saxsun min solomin wa qaasiti boo yardaa gërëm na Habibulaay soppi yàlla bi andi ci man gis nga ah, yàlla la xàqu bi moom dafay def salaatu lay def eh, moom nag numéro un yër ngërmaande lay def ah, kii nag ci ci kii kële nag rahmat lay def moom kële moom day baaxee nii la mbir mi nekkee kon nag lii dafa nekkee way yardaa Habibulaay radiyallaahu anhu wa radu anhu hani dafa doon ndax baaxam fama dara du lor saxtun jéppiti min min sa lumin ku may tooñkat bu ma jéppi du ma yàqal dara waqaasitin ak ku dëng xam nga xistu nañ firi dëng nañ firi maan nañ firi jubee juba ku jubati man kuy tooñ ak ku jubati seen man a tooñ nga ak seen jubati ga du ma du ma yàqal dara man Ibrahima Niass fa inni muhibun attaji rafa diinihi bi qaswin wali yarqaadu kulla morabiti fay nii man Ibrahima Niass muy bun ku bëgg laa arta ji maa ngi yaakaar nag rafet yi nii ma yëkkati naan ci maa ngi yaakaar ni daa ko yëkkati de waxut waxut lislaam de lislaam diina mooy taxaw lislaam mën a taxaw bi qaswin danaa ko def ci xas xasu mooy xeex jaar wali wa yan xaadu dina omal lii ñel ma kulla muraabiti yëpp ña xam ne am nañ takkaayu nañ jëm ci diina ji ñi takkaayu jëm ci yàlla ñëpp dañ womat na nga ànd ak man koo dégg nangoo nangoo ànd ak bàyyi xamal ko takkaayu jëm ci yàlla dangaa war a ànd ak koo xam dafa juuti jëm jëm ci yàlla muraabit googu la jëm mooy ñi nga xam ne ñooy faandu maanaam waaye maay bi mooy ko takkaayu ñi takkaayu jëm ci yàlla yëpp am na koo xam ne daf ne naa koo leeral lu tax dafa am ko laaj koo xam ne lu taale bàyyi lan moo tax naar yi dikk ñoom ñëpp di ko naar topp si bàyyi daal boroom xam-xam yi naa di ko topp si bàyyi daf ko jaaxal lu te ba toppuñ kenn topp si lu tax lu am <laughs> mu ne naa ko ci waxtaan xam naa nag xam naa lu xam xam ci dara waaye ah xëy na koo seet xam ci lu xam lu tax de wax naa ko ci benn kii ma ne ko xam nga lu tax ci mos ma ne ko boromi milliard bu ñàkkee mooy ko xam ni yore ku yore milliard mm. ah ku xam ne da nga tax faj aajo tey nga toog mën laa faj benn aajo nga yëg koo xam ne xam na milliard yaa ko nag ñoom naar yi ñoo xamoon madadu wilaaye mm. ñàkk madadu wilaaye xam nañ ko yore wilaaye mm. loolu danga la kat ba ci gàtt gis nga jël bu ñu doon jëloon loolu rek doy waaw waaw léegi nag ku xam ne dafa dëkkoon yelwaan man naa xam moom ku ku ñàkk moo tax ñi nga xam ne dikkuñ ci ay miskin lañ woon miskin da xamul ki xamul ne nag li ma man ne ah daa foog ne moom ni miskin na la ñëpp nekkee miskin déer am na fi milliardaire de <laughs> ah, yaa xamul nag naar yi nag xam nañ ko nag daa dikk nag yaa man amana jëmeel xalq mosu ji la bañ dikkee nag ah serviteur bi yaa mee xam yaay serviteur gaa yëpp waaye xanaa xam nga kooku naar boobu xam na ñooñ koy jaru laaj li tax ñu dikk <laughs> seen intérêt moo tax ñu dikk na nabil asimi ah, asimi musaidi polom ak yaman an atawo bi sàqti xam nga dafa am laaj yu may laaj léeg-léeg ma koy tontuwaale bu bu ko borom diggee rek su xam ne tontu nañ ko bu bu ndaxte waxi bàyyi moo lay tontu. xam nga léegi maa ngi wax si am na ko ma laaj moom waaw luy luy sekkari siyaare siyaare kay siyaare <laughs> kay xam nga ne boo deful siyaare boo deful sëyru xam nga sëyru. mooy siyaare. boo deful sëyru xam fi ngay dox. dox de seeti maqaamaat yi dem di kii. loolu mooy siyaare dëgg dëgg dëgg ku dul siyaare doo am siyaada ku dul siyaare doo am ku dul siyaare doo am dolleeku kon nag sëyru ak siyaara boo ko xoolee rek benn la kon nag wa an na bi asimiye moussa idi foo nag ëkku ne yowoon benn bés bi saaqitin di jéppi an ataawu ci ay mayam man mu may ma dara ma ne xem naa ko déedéet lu ma may rek naw naa ko mënu yontu bi sala sala alayhi suma salaam hoo analo ata an lam yakun bi saraiti xaale yéen kon salaatullahi sama salaam woowu anal dinaa amee ca salaatu salaam ba ata an may boo xamante ni lam yakun nekk bi saraiti ànd ak sart yàlla na fa def salaatu salaam boo xam ne dana ma may may goo xam ne xamul sart am rek xooloon ni defal ma lii ma laa defal lii déedéet damay rek bi saraiti yàlla na ko yàlla defal ñu tam amin xaale salaatullahi sama salaam wa alin wa ashabin xiyaaril wasaayiti يالنا يالنا صلاة السلام تي موم اك اندو يا خامتي نيوي تانيفو انترميدير يي حرف الظا حرف يا خامتي ما عرفو تا بو توي بي لان لا باي وخات باي نينا سانت الى خير العباد وما لفظ لساني سواه سواه بل فؤادي ما لحظ سانت لحسنا جيم لحس موي نيبال نيبال نيبال takk seeni bagage teg ko ci kaw kii jiital kii dañu ngay dem nag fi ñax ma nekk loolu mooy laxas laxas naa jëm fan ilaa xayri ibaad jëm ci nga ba ci gën laa jëm te jaam ya waaw jaam boo xam nga daal xam nga li ma bëgg xam nga léegi jaam benn jaam mooy jaam bi huwal habdu aqan wal anaamu abidu kooko doo nga jaam waaye ku moom doo jaam jaam jaam nga royteef nga moo tax ñun ay royteef lañ waaye jaam dëgg kenn ko def ah kon nag kooku laa jëman ilaa xëy ibaad yi wama lafa sa du tudd lisaani sama làmmiñ boo déggee kàddu gu sànneeku ci man du sànneeku saa kur moom moom rek laay wax sama làmmiñ du fu ubbeeku tudd kur moom bal fu aadee sama xol maa laa sama xel du bàyyi xel kenn sama xol bi du bàyyi xel kenn su ma làmmiñ tudd keneen man moom lay waxtaanee moom lay bàyyi kel fa es marxan maa dunta tadri muhammadan a ah, fa daari sumaal maa moo ni fii dahrihi xafi dundal yow sama waay yow xadi juuf maraxan ngay saata gaay moo wax la baati wolof yoo xam ne comme dundal di saata gaay xam nga sàdd gaay mooy noosal sa xol bi nu firi <laughs> dundal ci xol buy xol bu neex ah moo tax baat yooyu xale xamuñ ko maa dumtu fekk xam nga maa sax fekk sax nga tëdd la xam Muhammad koy mooy Muhammad fekk xam nga koy xam koy Muhammad del dund ci xol bu neex waaye ndax nit ñi xam nañ koy kan kan kan mooy Muhammad mm. kuñ sant ki kan la waaye kan la waaye <laughs> ah, boo xamee kan mooy Muhammad rek dundal ci ak noos fa daari sama kër gi mm-hmm. ah, ñoom sumaal mamoo mamooni mm-hmm. toomaayi mamoon fi dari ca dërëm mm-hmm. xoofi sax bi maanaa moom lañ ko toog kon nag ay turandoom dong moo fees sama man ay turandoo turandoom moo fees sama kër gi dell amoon ko fi xanaa xamal xoota même kuñ tundoon Demba sax Demba turandoom la Biraan turandoom la Kadet Faatu ak ñoom ay turandoom lañ ay da nga maam jëto da nga maam turandoom lañ ku ko ko <laughs> ndax li neex naa wax <laughs> ah <laughs> léegi nag mu jël ko saayira ko def ko ci tuddoom yi mu jural yi mu jural boppam fa asmaa uhu asmaa u asxaasu ildati وما تراني فرسول دمير وي وبم بانكو في نخرة في سما توري فاسماء اي ترم اسماء اسقاس الى سما توري جيمي دومي موم لا كوف دي وما ما تراني فرسول دمير بمعنى لا سر عبد الله عبد الله قال الله جبل الله عبد الله تركان موم ترو احمد احمد تركان سيتل ماي تركان واو لمن تركان واو مكي تركان واو عبد الرحمن تركان عبد الرحيم تركان Abdou Malick turim kan la ba turee jeex ba jeex ba jeex ba jeex tur kan la demal ah kuy Mariam Mariam ci bàyyi moo di Mariam mar yàlla naan <laughs> Mariam yëpp ay trop <laughs> ah? de fa daari sumaan ma moo ni fii daari yi ñu ko tëkk nag ci ay turam laa ko toomu kër sama kër gi man tabasar xool la xam nga li ma la li ma xaw a jaaxle mu ne tabasar fa in la xamra baadin wa saayirum fa afdalu mabuusun hadaa naasi aw waas tabasar seetlu li ma la wax man Ibrahima Niass fa in al amra mbir mi ma la wax nii baadin dafa feeñ wasaay baadin ma nga feeñ wasaay te dafa dafa dafa nekk biti ñëpp ko ñëpp ko ñëpp ko gis feeñ na feeñ na mi ngi ci biti li ma feeñ na mi ngi ci fa afdalu ma ausin moo gën képp kuñ ma sa wax ne ko demal ma xaddaa gina naa as koo xam ne gina ana si awaas koo xam ne mi ngi nekk di gin niñu wala dina waar ka ca gën mooy sama waaj alayhi salaatu laahi suma salaamoo kasal alo wal asaabo maa lafasn lafas alu wal asaabu maa lafasn feeg sànni kati kàddu feeg nit a ngay wax kàddum de dem lafa sama sànni baat laf su mooy li tax ñu ko laf boo ko waxee baat bi dafay dafay dafay dafay dafay dem feeg sànnikati kàddu mi ngay sànni kàddu rek yàlla na salaat nekk ca moom ak aalu bi ak sax bi xarfu ayin ah ma dem ba tey na am inna xayra naa si arjahu saafi an li naf si walil ahlina is jiitu xaasi an na am li ma wax dëgg la inna xayra naasi naka ki gën ci nit ñi arjohu moom laa yaakaar dinaa ko yaat saafi an moom may defal intervention naf seen sama naf bi ki gën ci moom laa yaakaar ne dana ma defal intervention sama bopp wali aali na ak samay gars yi is jiitu ba ma diggee xaasal ba ma dikkee ci moom da toroxlu toroxlu ci kanamam laa yaakaar ne dina ma defal lii ci defal ma intervention ak képp koo xam ne mi ngi nekk sama gars samay gars ilaa kulli xalqilaayi awsaltani amatan wa inni waxaq waxaqil Moustapha lastu qaanitu yow awsalta xàggale nga nii matan xéwal yi nga dénk ilaa kulli xalqilaay jëm ci mbindeef yàlla yëpp sa xéwal nga àgg fa ba ca melentaan àggale nga yàlla gi àggale ko way nii man Ibrahima Ñas nag wa haqqil Moustapha maa ngi giñ ci àq Moustapha man du ma man de ah, am naa yaakaar may ne dinaa jot sama wàllu ma itam lastu bi xaani te nu koy découragé xaqiirun zalilun musnibun xaadimun lakum muhibun shadidu ubbi xad yaa adda xaad yaa cay waay cay waay kii di la wëy di Ibrahima Niass xaqiirun ku xeeboo xeeb salilun ku toroxlu la musnibun ku bëri bàkkaat la xaadimun liggéeykat la du wàcc mukk làkkum ñe leen mi ngi waay suba ngoon mi ci sa tool bi muhibun ku la sopp la sa la bi ku hubbi tar sofet la xat jaa di mu toral sa kanam nag lii yëpp Ibrahima moom la def ajir nii ajir nii mun ahimtiya falam alqa yowmal rae eh, ma kuntu saani a nga la xeet li ma waay boo jaaru ñu tuddee ko dëkkandoo ci ajaara mooy ku lay xetli ajir nii xetli ma ajir nii xetli ma mun hamina mun hamina tur la tur yonti mooy Muhammad aham ahamtiya Ahmad yow Muhammad yow Ahmad loolu ci him làmmiñu ibraniya ñoo ko daan tuddee diggante Muhammad ak Ahmad ñu ne mun hamina ahimtiya bàyyi ñu su ne dana fa falam alqa ma faram alxabab moo day jet gis nga de faram alxabab moo day jet yow ma raam yi bésub tàng bu moo day jet maa kuntu la ma nekkoon saan saan da ko def la ma doon def ci lu ñaaw yëpp nang ma defal intervention boobu moo dajeeg la ma doon ci lu ñaaw la ma doon def boo ci dafa def dara boo ci dajeeg dara cey aleyka salaatullahi suma salaama salaatan am ci li diinaka rafia xaale kenn nekk ci yow salaatullahi suma salaama salaatan salaata boo xam ne biha ci moom am ci lay mujjee raafiyan di yëkkati li diine ko si ni na nga ma defal salaatu boo xam ne boo ko defalee ma am doole mën a yëkkati sa diine ci cey aleyka salaatu laay suma salaam o la deykal maadihi naar masaqe bi laay salaatu moo bëri moo bëri ay matière matière bu ne mën na ko jur moom salaatu salaam lii nag xamoon nit ñi nag lii la fii li fi leen waajarawee mooy matière première fi ngay jëlee matière première tout bi xam ne moo national maanaam matière polémique générale boo xam ne lépp loo bëgg buy bombe atomique buy xéwal buy may buy mbëkk buy xeex buy lépp salaatu salaam ci lay génne kon nag yàlla ka salaatu laay suma salaam woo bii loolu loo loo ci bëgg Ibrahima asoodu boo dinaa nekk sanga la dekk fa yow la daak almaadihina mboolem tagg yi taggkat yi almasaaqe mboolem taggkat yi la tagg ñi nga xam ne ñooy wax kat yi ko daa xaa wax man nekk sang bi nga xam maa leen dàqa wax ñoom ñëpp salaatu wa salaam boo xam ne moom may defal lii laa bëgg te wax na dëgg de bàyyi fu mu tagg yoon ci benn wuy kenn mosu fa àgg ci kaw ci kaw suuf ne même taalibe bàyyi mu àgg benn wuy kenn mosu fi àgg fi wuy xam nga waxuma seen kaamil bu toll naka alquran gis nga gis seen gis nga ay ku taalif téere yoo xam ne ay walim la yoo xam ne mën na trente walim cinquante walim ba cent walim sax waaye nag ngay jël benn téere boo xam ne alquran moo ëpp téeméeri walim yooyu léegi nag téere bàyyi waxuma ko ëppale sax bëri ku toll na moom toll bëriwul waaye li wax tey taali bàyyi gëstuuñ sax ba xam rek xanaa woy yi nga xam ne suñ ko wéyee ci gàmmu am xaalis rek moo cay bëri waaye woy xam koy bàyyi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg <laughs> xamuñ ko sax ali maal ali kiraami wa sabi salaatu wa taslimun wa man kaana taabia xaale yenn ko maal ali kiraami wa sabi salaatu salaatu wa taslimun wa man ak képp ko xam ne kaa nekk ko toppoo ñu taxawal ñu mott bi السلام عليكم ورحمه الله وبركاته